man pour man ñom defuñ dara ciow li yëpp pour man média bi la ñi defuñ dara parce que wolof ñay dafa am lu wax neena woudé nim la gissé la lay ëwalee ñëwaat né ku woddoo làmmeñ bo noppé raflé dafa am lu bëgg jàngalé fofu mom wolof ñay té dafa am solo xam nga ñaar ñi bëgguñ nit ñi wacc leen fuñu toll dañoo bëgg nit ñi di wax ci ñom té amuñ talent bu nit ñi di waxé ci ñom tout temps mais fokk ñuy créer ay bad buzz mënul ñak ki fokk mu dem kër kële soti fa saw kee sotti ko soow kee dóor ko mu xëm ñu poñe sénégalais yi parce que lii la sénégalais yi bëgg médias yi ñoo gën a ñàkk fayda gën a manquant kunkan ñoom lii lañ ñuy won lu bon la ñu promouvoir ñoom médias yi lii la ñuy lii lañ ñuy won ñoom defuñ dara ñoom ñoom defuñ dara ñoom ñoom seen liggéey la ñu nekk seen marketing Pawlish la fois passée am na loo def ma gën di la attaqué nga gën di attaqué man sama soxna on ne touche pas à ma sooy wax waxal man mais sama jabar moom bu ko boole ci yëf yi génnee ko ci yéen lu leen neex def leen parce que sénégalais yi ñoo leen ñoo leen